mbokki téléspectateur u leeral tv baaxoo bi ñu seetaan ci réew mi ak ci bitim réew dellu nañ ak mbégte mu màgg mbégte mu yaatoo yaatu wéyal ko ci suñu cofeel ci ki ñuy waxtaanee di sangu-sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sama soppe di seen soppe di sama sang di seen sang di suñu sang ndax doy na sëkk yàlla tagg ko ni ko wa innaka la ala xuluqin azim moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ci seen téere bu barkeel bi di burdatul madiex tey di ñaareelu buntu bu ñuy jàng bunt bi nag tey dafay wax ci fi taxdiri min hawa nafs imaam Busayri deuxième thème bi mu ñu indil ci burda bi mooy avertissement yi muy joxe ak mise en jëm ci ñu wattandiku topp suñu nafsu topp suñu bakken ndax topp bi ñu koy topp moo ñuy yóbbee ci alkande moo tax imaam Busayri ni fa inna ammaarati bissuui mattaadat min jahliha bi nadiri bi walharami imaamu Busayri nee na fa inna amaarati naka sama digalaa kon bisu ci ñawteef mattaadat moom day waaruwul min jahliha ci réere gi mu réere bi nadiri shay bi ci avertissement yi ko bejjaaw di jox wala xarami ak màggat xam nga dafa am nafs lu ñuy tuddee euh, lam incitatrice muy li ñuy tuddee bakken bi xiirtal nit ci mu def lu ñaaw mooy an nafsu al amaara bi suu am an nafsu bi suu am beneen nafsu bu ñuy wax nafsul lawaama am beneen nafsu bu ñuy wax nafsul mutmainna nafsu bi amaara bi suu biy digle lu ñaaw imam Busayri nee na nafsam boobu day moom daa mel ni waaruwul jàjjuwul ndax mi ngi réere avertissement bi ko bijaaw di jox xam nga cheikh nit bu xësee ba bijaaw bijaaw bi ban annonce la lay jox daf lay wan ni li nga xës borom ma ko dundaat ndax bu fekkee ni yow sa bijaaw ci soixante-dix ans nga bijaawee ci soixante ans nga bijaawee <laughs> mënoo dundaat soixante ans ci kaw suuf ndax boo dundaatee 60 ans di nga yegg 120 ans te boo xoolee ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na xeetam ñu ngi nekk ci diggante 60 70 donc ginnaaw loolu luñ ci dundaat lu nekk rek bénéfice ba tax na mu ne sama bakken bii day jàjjuwul ndax bijaaw ak màggat ñëw nañ di ko avertir waaye bàyyiwu ci xel waaye wala aaddat moom day préparé wul moom suma bakken bi minal fialil jamili ci jëf lu baax jëf ju baax jooju muy jëf lu tax mu koy jëf day dayfin war ko terale gan gan goo xam ne alam ma bi rasi wàcc na ci sama bopp xayra muxtashimin waaye moom kersowul sax ci continuer di def yëfi ndaw ndax ki dem ba bi jaaw te mënta jombale boppam di jëf jëfi ndaw mu ne waroon na waajal boppam def ci loo xamante ni lu baax la mu ne waaye law kuntu aalamu imaam bu séeri ne ni bu ma xamoon ni an nii naka man ma waqiruhu duma wekk respecte li nga xam ne moom mooy bijjaaw bi nga xam ni moom moom a gane si ci sama bopp bi katam du sirran mu ne kon daal dama doon ut fuddan wala mu ut tent daal di tent bopp bi ñuulal ko comme léegi-léegi yenn mag ni ni ñuy def bañ a màgget waaw <laughs> jël tent di tent rek <laughs> waaye loo tent tent moom waaw bi bu heure bijaaw jotee dana ñëw de loolu moom kenn mënu bu fekkee ni dem naa ba nekk mag te mënumaa bàyyi yam doon def mu ne kon mënoon tent rek daal di tent bopp bi waaw ngir nëbb bijaaw bi ndax ku ma gis rek ma camoufler wan ni comme ni ñu koy waxee naan jeune pas <laughs> ndeysaan moo tax imaam Busayri nii man lii bi raddi jimaaxin min gawaayatiha nee na ana sama bakken daal dafa mel ni dafa màmm comme fas ni muy màmm yi imaam Busayri ne kan mooy téye ci ngalaabu sama fas bi mais fas boobu noonu jëmmi fas taxul muy wax li tax muy wax mooy bakkenam bi la jàppee comme fas bu màmm nga xamante ni moom mënatul téye bakken bi empêché ko ci mu def lu xaram moo tax mu ni man lii bi raddi jumaaxin kan mooy delloo mam mu sama bakken bi min rawaayatiha ci ndawte gi sama bakken gi nekk kama yu raddu comme ni ñuy delloowee jimaaxul xay gi mam fas bi lujumi ci laab laabu fas bi bu fas bi màmmee ñu téye ko neutraliser boobu fas bi di dal ne kan mooy dalalee noonu sama kon xam nga ni la doon wax ci première bunt ba ci cofeel ak ka ñëw mel ni ku yedd boppam ci bakken bi jàpp ni bakken bi dafa nekk ci lu ko neex léegi nag moom yaa mi ngi soog ku tàmbali nag di ut ku ko dimbali kan moo koy dimbali si mu ne ah fala tarum bul sàkku bil maasi ci mooy yi kasra shahwatiha damm bànneex bi mu ne ah inna taama day ñam yu xaw wii dafay dëgëral shahwata nahimi bànneexu envie wu aji foqale ji xam nga ki foqale saa buy lekk dafay gën a am kooku boo boo arrêté da ngay sonn ndax ku foqale la saa buy lekk di gën a am envie moo tax yu xaw yi dafay gën a dëgëral rek shahwatan nahimi bànneexu li nga xam ne moom mooy aji foqali ci mu ne wan nafsu bakken imaam Busiri nee na kat tifli daa mel ni xale biy nàmp in tuhmilhu soo ko bàyyee mu continuer ala xubbi radaa'i waaw shabba dafay màgg moom xale boobu ala xubbi radaa'i ci bëgg nàmp rek wa in taftimhu soo ko feralee yan fatimi mu daal di fer ah bu Busayri nee na suñu bakkeen yi de ay xale rek lañ xale yuy nàmp lañ xale buy nàmp nag bu demee ba yegg ci atu fu mu war a fere boo ko feralu day continuer di jàpp wen bi di nàmp rek nee na bakkeen noonu la mel soo ko nee nag taxawal doy na nag parce que li nga def ci lu xaraam bari na nee mu taxaw yaa koy yar neutraliser ko maîtriser ko ba bakken bi taxaw ba dootul demati dootul yóbbu moom fu ko neex mais yow yaa koy ñor di ko yóbbu fi la neex yow neex na yow yaay bi ah mu ne mu li nga xam ni moom mooy envie ba kenn di am passion yim lay yóbbu wa xaazir antuwalliyahu nee defal attention nga jël bakken def ko président wa xaasir anti waliyahu nee na ko def candidat comme ci suñu jamono ñëpp a ngi ne dañu bëgg nekk candidat yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm waaw te yàlla te yàlla boole ñoo ki gën ci ñun incha mu ne wa xaasir anti waliyahu nee na wattandikul nga méngale bakken bi daal di koy fal ko ci kaw mu ne innal hawa mu ne passion bakken foo ko toppee rek maatawalla walla na lépp lu mu méngoo rek lépp luñ ko fal ndomba yas mi rek daf koy écrasé aw yaxi mi waaw aw yosi mi mu ayibal ko rek maanaam la ko ci doon jox mi ngi mel ni rek nga jël candidat boo xam ne danga nga koo fal te fal bi nga ko fal amoon ci yaakaar waaye ba nga ko falee la nga ko falee mu yàq lépp moo tax mu ne yus dafay écraser détruire lépp aw yas mi wala mu ayibal ko du fa def dara lu baax waxaadaraam ci wàllu innal hawa ma tawalla yusni am bi waraaxiha na nga sàmmanteeg bakken bi nag waxiya moom fexeel ba maanaam sàmm bakken bi comme ni ngay sàmmi ay ay xar ñoom sàmm xam xaasir <laughs> an tuwalliyahu nee na nag waraaxiha na nga sàmm bakken bi mel ni kuy sàmm ay jur waxiya fil aabali saa imatun maanaam sa bakken bi jëf yu bon yi muy def nee na da jékki-jékki nga mel ni ku ku koy kar bañ mu bëtt ñagu jàmbur wala mu bañ mu dugg fu koy gaañ wala fu koy lor wala fu muy réeree wala foo xam ni jur gi mën ndek ment mën nañ kaa fàdd wa in hiya stahlatil mar'a fala tusli donte sax danga yore gétt gi jékki-jékki rek am benn jur boo xamante ni mi ngi dem di isolé wu foo xamante ni ma nga fa nekk ci bànneexam di fortaatu nee na li muy isolé nag nee na dellowaat ko nga dugalaat ko ci biir gétt gi parce que loolu moom mooy sécurité parce que bu benn boobu réeré yow muy sàmm bi boo ñëwee dañu yàlla lañ laaj dañ naan la jur gi manqué na moo tax bakken nee na la war a mel nee na kon dafa la bëgg a wax ne bakken bi bu mu nekk ci lu ko neex mukk ba nga fuuyal ko bàyyi ko mu continuer ci li nga xamante ni mooy ci li ka ci li ka neex Imam Busiri mu ne kam xasanat ñaata yoon la bakken di rafetalal nit la lazatan bànneex li mar ñeel nit ki xaatilatan te xamul ne lam koy neexal di ko ko rafetalal noonu ci bànneex xaatilatan daf koy rey rek min xaysu lam yadri mais ka nekk ci bànneexu bakkenam xamul ni lam yadri anna summa fi xamul ni li nga xam ni moom mooy ñaay ba muy michu biñ ko defaral tooke moom moo ci nekk muy poison maanaam daf la jox misaal moo tax xasida bi dafa am benn beauté poétique bu exceptionnel bu ci nekk gis nga style métaphorique yi Imam Busiri di utiliser maanaam méchoui la la tegal mu ne méchoui bu ñu poisonné lu méchoui bi neex neex neex commencement bi yaa ngi lekk muy neex ngay am appétit di lekk muy neex ngay am envie continuer di lekk mais mois boobu doo xam impact bu négatif bi muy def di détériorer li nga xamante ni moom mooy sa cœur bi sa santé nee na boo demee boo sori ba ci pare ci ngay soog a gis effet wu poison bi nekkoon ci biir méchoui bi. moo tax mu ni annas min xaysu lam yadri annas mu fi dasam ki topp bakkenam nekk ci muy neex muy def ay mooy di def bàkkaar di def yu yu bon yooyu muy continuer di def mu koy neexlu xamul ne loolu moo koy bóob loolu moo koy rey loolu rek la fa bëgg wax nee na wax sa na nga wattandiku ak dasa isa woy warekat yi yi nga xamante ni dañ lay ñëw di la wan ni la ah, waaw lii moo baax yaa ngi ci nekk rek ah, waaw sa àdduna la toj ko waaw nee sa àdduna la wax na rek ne la nanga nga na na nga na nga toj li nga xam ne moom mooy sa àdduna ndeysaan mu ni min juuañ yi lay nax min juuañ ci xiif wa min shibaañ ak ci fër maanaam suur kël nee na yi lay nax di la teg ay piège ak dasaisa ah. baatu dasisa ah, moom mooy macro faru ba max ma satin mu ne léegi-léegi xanaa xamoo ne xiif dina tane sax mi na mi na tuxam yi ci fër léegi-léegi ah ah léegi-léegi maanaam xiif mooy gën a bon sax ka fër xam ki fër maanaam bu amee moyen bu mu évacuer li nekk ci biiram bu demee ci bu fekkee ni dafa soxla dem ci wanag pour évacuer la nekk ci biir la tax mu fër bu génnee mu jàmm <laughs> Samba nee na waaw ah, ah suñu waaye gis nga mën nga dem hôpital aussi ñu def benn pexe boo xamante ni la nekk ci biir bi dafay génn waaye xam nga boo xiifee xiif moom lan mooy lan mooy sa sa lan moo la mën a faj xiif moom lekk rek waaw xam nga damaa lekk ba sama biir fees ba mënatuma ma tëdd moo gën dama xiif ba daanu fii ma daal. waaw <laughs> ndax nag boo xiifee doo mën jaamu yàlla doo mën def dara pourtant mën nga suur sax am ndëgër laay boo xamante ni di mën a def yenn jaamu yàlla yi di nga dégg ko naan mën de li ma lekk moo bari moo tax bi may julli noonu laa sonni mais julli nga <laughs> waaye am na xiif fu muy toll foo xam ne <laughs> doo tale sax julli sa xel mee fi dul nekk nee na wastafrixi dama amin aynin xadim talaat nee na sottil rongoñ boo xam ni mi ngi tukkee ci bët boo xam ne xadim talaat fees na dell minal mi ci jëf yu xaraam walzam nee na na nga saxoo yow mi nga xam ni ndeysaan sa bakken daa nuur ci di def lu bàkkaar ximyatan nadami tàngooru rëccu maanaam nee na da nga war a rëccu rëccu bu taratar maanaam rëccu boo xam ne dafay sincère nga wan ni mankat def naa ay bàkkaar jéggalu naa li nga xam ne moom mooy euh, bàkkaar yi mu ne waxaalifi nafsa na nga wan ginnaaw li nga xam ni moom mooy sa bakken wax cheytaana ak cheytaane waax si hima te nga mooy leen bu leen mës jox confiance sa bakken ak cheytaane parce que ay ñoo bokk coalition ñoom ñaar dañu coaliser cheytaane ak bakken ñoom ñaar ñoo ànd ay xarit la waasihima nee na na nga leen mooy de bu leen sax déglu wa in huma donte seytaane ak nafs mahadaka nusha dañoo ñëw nee dañ lay conseiller waaw léegi seytaane ak kii dañuy def seen délégation ñëw ah ñoo ne dañ lay conseiller nee na bu leen déglu de mahadaka nusha fattahimi nee na na nga leen tuumaal waaw ne ñii ay ay tóob lañu ñii wóoluwuma leen waaw boo moytul sax ay agent secret dañoo ñëw pour détruire ma fattahimi nee na wala tuti minhuma xasman wala xakaman nee na léegi-léegi seytaane ak bakken dañuy ñëw taxaw kii nekk manaam ni ñuy tuddee mbubbu avocat lay sol keneen ki day ñëw ne da lay plaider kenn ki day ñëw di xuloo keneen ki di àtte xam nga li gën a yéeme <laughs> mooy nga dem ci ëttu àttekat boo xam ni maanaam nga dem tribunal <laughs> juge bi lay àtte sa noonu la avocat bi lay défendre <laughs> sa noonu la waaye léegi avocat bi nga xamante ni moo la moom mooy nekk ci beneen côté bi bëgg laa dugal yow koy rëcce <laughs> assuré bi dafa jóg pour maanaam yow sa noonu la mu ngi doon xaar ku nga ñëw mu tëj avocat bi yow avocat bi nga jël bu ñu moom yow lay plaider avocat bi moom juge bi ñoo xaar <laughs> moom lay wax fii mu ne wala tuta minhuma xasman wala xakama ndax nee na fa anta yow. mi nga xam ne yaay l'accusé yow mi ñuy àtte taarifu xam nga kay dal xas mi pexe ki nga xamante ni moom nga doon xuloo wal xakam ak ki la war a àtte ndeysaan mu ne astaghfirullah maa ngi jéggalu yàlla ndeysaan min xaw xawlin ci wax boo xam ne bi laa amalin àndut ak jëf mu ne wax boo xamante ne àndut ak jëf dafa mel ni laqad nasabtu maa ngi askanale naslan doom yoo xam ne li zion commune ci koo xam ne daa jaasiir ku ménopause koo xam ne dafa stérile dafa stérile ah na man wax yoo xamante ne àndut ak jëf mu ne daa mel ni rek maa ngi fekk jigéen ji mu am doom ma tuumaal ko ne moo jur doom ji nee na la ma mu ne amartukal xayra maa ngi lay digal nela la yiwal te nga baax laakin waaye ma tamartu bi man ci sama bopp digaluma sama bopp baax maanaam la cheikh jaaral ci yoonu baax cheikh baaxal waaye man lu tax baaxuma omastaqamtu jubuma waaye fa maa xawlii laka staqim kon ana sama wax ñeel la naan la jubal yow nee na maa ngi ciy jéggalu yàlla digal la yiw boo xamante ni man defuma mu ne kon ana sama wax jooju di la wax naan la jubal lu muy jëriñ mën na la jëriñ yow man yow mi ma koy wax waaye léegi man ko wax nag lan ci jëriñ <laughs> yaa ci gañe man ma perte ji taman maa la jox li nga xam ne mooy digle bi kon bayit bi ci mujj ci ñaareelu bunt bi imaam Busayri ne wala tazawattu te man yóbbu lu ma benn yoon xablal mawti lu njëkk dee di ñëw naafilatan ab naafila boo xam ne dama koy dollee walam usalli imam Busayri nee na julliwuma siwaa fardi lu dul farata rek walam asumi waaye wooruma tamit lu dul farata imam Busayri nee na daal tooñ naa sunna koo xam ne mais sunna soosu moom sunna kan lay wax imam Busayri xasidaam bu rafet la xoolal annonce bi mu lay jox pour wala dugg ci nag ci ki taxoon muy wax ki taxoon muy wax ci première bunt ba naan kama sopp ak kamay fàttali di wax ci bakken mbaak yépp léegi nag ka mu doon wër ñu koy bëgg gis moo tax mu ne tooñ naa sunna si nga xam ne ah moom nag wala tasawatu dolliwu ma xablal mawti yi njëkk dee naafilatan naafila bu may dolli walam usalli julliwu ma si waa fardi lu sama farata walam asuma nee na man daal julli farata rek fa koor kooru farata laa après julli du ma naafila après koor du ma naafila boobu nag xam naa ni suñu mbokk ñu mbokk séeréer yeeg alpulaar yi waaw xam nga nag ñun léegi dañoo mën a woor ñun moom macha allah waaw jullee pare dañ ciy teg naafila bu ñu wooree ba pare dañ ciy teg kooru naafila kon mbokk yi loolu moom mooy ñaareelu bunt bi di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi di weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje ba suba jàmm ci beneen euh, numéro ci suñu troisième buntu incha allahu taala troisième buntu bi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci dugg ci fii madxi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci la imaam bu saydi nag di soog a tàmbali tagg yonente bi sallallahu alayhi wa kon nag mbokk mi nooy def da fexe rek suba ak jàmm ci leeru gudd ba toog jàkkaarloo leeral TV xaar li nga xam ne troisième bunt bi imam bu seydi tàmbale tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu